Assane Diatta moom pare na ma nga yor benn nan ci loxoom arbitre bee ngi leen di xool mi ngi naan ba xam pare nga Assane Diatta tojal nan bi Assane Diatta toj na nan bi. waaw pare na arbitre sifflé na combat ba combat ba départ na waaw ña ngay léew too di demee wet seen taxawaay rafet na Aliou Maana daan loo ko bëgg a indi xeex Aliou Maana daan loo ko a indi xeex waaye Aliou Maana na nga tey Assane Diatta na teg. Aliou maa nañ koy gëdd ñëpp loxo droitam bi pour di yéene coup waaye Aliou na nga tey Aliou maa na nga waaw ñoom ñaar nag la may bañ a wax laay wax boo sàgganut dañuy xaw a tële waaw waaye combat bi faaw mu jeex combat bi mënta jeexee ma dañ ko war a bëri ci jom bëri ko ci fula ndax combat bi jaay seen combat yi di ñëw ñoo ngi ci diggante Aliou Mané Soundiata Sëñ Ndiata ngi lewtoo la ñu ngi lewtoo ci loxo yi ñoom ñaar Sëñ Ndiata ngi a cokkaas mais loolu moom di cokkaasu dara waaw Aliou Mané nga tànk fanaanal tànk fanaanal ndax Aliou jàpp na yoor na lii de mooy yooru Aliou Mané yoor na pour jàpp Sëñ Ndiata na ko naax na ko ñaar loxo yi ndengeñ na ko Aliou Mané jàpp na ci téere yi Aliou Mané ndengeñ na suñu la Sëñ Ndiata ngi yóotu Soundiata ngi yóotumee jàppul Soundiata Soundiata dajale na ñaar loxo Aliou Mané yi peese ko Aliou Mané nga jàpp ci ngemb li mi ngi gën a yóotu bàyyiwaat na ko mi ngi jàpp ci ndig li Soundiata li ngay mayee bari na Soundiata li ngay mayee bari na Soundiata ni la Aliou Mané dajale métti na Soundiata Aliou Mané ni la dajale Aliou Mané surux na Aliou Mané Soundiata Aliou Mané doon jéem a mbot far surux Aliou Mané doon jéem a mbot far surux Sunjata war na ko ndomba ma ngi koy pompé ma koy pompé ma ngay pompé ma ngay pompé ma ngi koy pompé ma ngi koy pompé Aliou Mané jébbalul waay Aliou Mané jébbalul Aliou jébbalul kenn du mbot sa mbot yi bon yooyu ah loolu du mbot kenn xamul ba xam da ngay kenn xamul loolu bëgg a def ah yaa ngi jógu ñëw ci écrit yi ci écrit ñëw ci écrit bu mag ah da ngaa waroon bële lu rëy ah Sunjata Sunjata inauguré woon stade bi Sunjata dellusiwaat na ci stade bi waaw Sunjata xaaral ñu wax ak Sunjata xaaral ñu wax ak Sunjata. waaw parce que jàng bëre dañoo mën a bëre. dëgg la ñu mën a lu ñu mën ci bëre sax waneeguñ ko. dëgg la waaye ñu ngi sant yàlla bu baax. dëgg la di na am na doole. dëgg la waaw yàlla moo may ndam. Aliou waaw dëgg la Sunjata. Sunjata gis nañu yaa inauguré stade. kuñ ma jox rek stade bi sama stade la. nañ ma jox Ama Baldé pare naa pour bëre ak moom. loolu teel na waaw waaw waaw. loolu teel waaw loolu teel na. suñu état tournoi bii nga xam ne euh, Fallou Ndiaye moo ko say naataangoo ngi ci biir. waaw te nga xaaroon ba final boobu jàll nga gën a tànn say morom. waaw loolu man loolu laa bëgg. man bëre ay xale yu fële laa bëgg. dëgg yi moom dafa bëre. dafa bëre ak kéwél kéwél daanu ko par décision à vite ñëpp naan ma da moo la mën ak ay kéwél nii mu machine nii la affaire yooyu mais man damay sant yàlla xam naa sama bopp newoon naa ko man duma ma kéwél te balaa moom bañ jàppante xam na ne man duma ma kéwél